إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مرسرى إني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 المرتضى إني أخادم المسار كل من بالكل ساعة تجرؤ والله داين صبر نظري إنسان يمن بالتبشر سبحانه ربا إلي ألتجي ومنه تفريج الكروب تجيه أكرم به ربا يقول ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد لو مع الإسلام والتزادوا لي بخولي أمها يوم الجميع العالمين جمعا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون رائلا أو خاتنا والمصطفى خديم عبدهم عبد الله محب كل مسلم ومسلما مخر كل مجرم ومجرما كتبوا أحمد أساس العادي على النبي العيسى السلادي كتبوا أحمد أساس العادي على النبي العيسى السلادي yàlla nga fi yàgg te barke Cheikhul Khadim ah kon ñu jàll ci jëwrin su ko defee mu wax ñu ñoom fan lan fan lan jóge ak nan lan dundee bis bi jëwrin ñi ngi siyaar di la laaj noo tudd ak foo jóge ak nan nga dundee di dundee dundee bis bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu man dañuy wax Diop Baye Fall bokk ci kuréel tout tànk Toubaay Bergamo jóge woon ba Bergamo ñëwoon ci bis bi lépp ngir sant Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mi nga xam ne bind xaside yi tey jii nag mbégte rek lañ si am ak kontaante ndax euh, ku gis bisu tey jii xam ne bis bu am solo la te koo ko gis tamit xam ne bisu xasida ren gii ute naag bis yi daan fi am ndax séparation yi nga xam ne gis nga ko tey jii nga xam ne góor ñi ak jigéen ñi fañ nekk lor rek ab firnde la si ak organisation bi nga xam ne képp koo xam ne boo fi dugg gis nga këyit diñ lay jox ak exposition bi nga xam ne ñu ngi ko fiy def bu am solo lool nga xam ne waa Majalis ñu ngi koy def ànd koog tuutaangi Touba Bergamo bis bi nag kontaan rek dañ ci def waaw di santat suñu tuba ak gërëm bu baax baax ta xam nañ ne bis bi bisum gënal la ak bisum tawfiq ak fajj aajo la ta am nañ ne lu way ñaan lu ne da ko dana ko am ci bisu xaside yi di ñaan mbokk yi ñu gëna a dal rek ta teelu and ak sel ak dal rek bu boba lepp lo xamne ne nañ ko ci bis bi rek suñ dañ nañ ko defal si bis ni nii ah, di sant ak nak nag dañoo neewul wax waye mbekté rek lañ andal motax waye ñi ci si tuub bu di siyaara di leen baalu àq yéen ñëpp nag jërë ngeen jëf. jërëjëf jëriñ yal nañu suñu tubaab boole dimbale kàddu yi jekk na sell na rafet na tamit wax dëgg yàlla tubaarkàlla yal nañu suñu tubaab boole dimbale jërëjëf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu waat rek meneen mbokkum taalibe léegi jëriñ ñu lay laaj tey gis nga bisu Milan bi ni nga xamante ne si ni la doxee ren nga xam ne booy xool ak bisub daaw ba yokkute bu baax a baax am na kon mel na liggéey bi mi ngi gën a jëm kanam ni liggéey Sëñ Tuubaa baaxoo def da laaj ren noo dundee bisub euh, xasida bi su ko defee nga fàttaliwaat mbokki taalibe yi lay déglu sa sa sa euh, mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Babacar Jum dëkk Touba Toscana mooy nuyoo di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp tey ñaan yàlla su mu nangul ñu jéggal ñu defal ñu tawféex euh, di ñaanit ci at mii nga xam ne mooy at mu bees mi ñu dugg dëppook màggaluk sëñ Abdou Khadre gi lépp loo xamante ni ab jullit mbaa ab taalube mbaa képp koo xam ab soppe la bëgg nga ko ci yàlla na la ko ci sunu borom defal lu fees sa njort te it yàlla na yàlla sunu borom euh, dàqal ñu ci lépp loo xamante ni lu ñuy daw la te sunu borom dugal ñu ci biir kaaraangeeg Cheikhul Khadim gi Serigne Touba ci daraja Cheikh Abdou Khadre Mbacké euh, bis bi nag doonutul bisub murid rek bisub umma islamique gep la ndax lepp lo xamanteni lu bax la ci kaw suuf sunu borom jaglel nako cheikhul khadim bis la bo xamanteni ni lepp lo xamanteni ni nit bëgg nako ci lu bax bu ñëwee da nako ci am mom moy xol nak nan la ko ciy wute yàlla sunu borom nak moy maye lam daan maye dem ak barki dem ba tay mi ngi koy maye tëlewut dara te serigne touba it képp ko xamanteni ku sax ci mom la ku ne ci mom la ci kem ni mu ko bëggee lépp loo xamante ni loo bëgg la dinga ko am incha allah dafa doon nag bis boo xamante ne nii ni maam bi Ibra daan waxee rek noonu la bis bi tegee ku dem ma dem la ku demul ma dem bis bi moom bi bis bu jot bu dellu siwaatee day yokk loolu moom ala ku laalin ku ñëw di nga ko gis ku ñëwul tamit boo déggee di nga ci di nga ci di nga ci dégg ay dég dégg ñun ñëpp nag bis bi dafa bokk ci sunu dund fi mu toll nii mën naa wax ne tey jii képp ku di murit ngay ngay gëstu ci xasida wala xasida nekk ci yow ci sa xol bis bii day doon loo xam day mel deret ci yow bu jotee te mënoo dem sa xol bi dootul neex mbaa foo nekk it dootoo tranquille kon xanaa di ñaan rek saa yu jotatee yàlla sunu borom fekkee loonu ko ñi nga xam ne ñoo koy taxawu di suñuy jëwriñ yàlla gën leen a kàttanal ba lépp loo xam ne luñ mënoon la ñu man lu ko raw ab dox am na ci lool waaye nag sëñ Tuubaa noonu la baaxoo daaw ak daaw jéeg ren saa su ne da koy gàcceel kon nak ñu ngi ñaan rek suñu borom duggal ñu ci biir ba lepp lo xamanteni ab bëgg nako suñu borom defal ko ko ci. li nga xamni nak moy li wa li serigne touba bëgg ci talubem mo nu ko gëna xam xana diko sakku ham ak diko dagan mu defal ñuko ko bi jaahi cheikhul khadim daraje cheikh abdul Khadir mbake mi nga xamni ñu ngi ci bisam bi mom daal xamna ni lepp luñ ci waxit nit jaar na fi ba wax ko ndax kenn du ci wax ba doyal kon nu ngi jéggulu ñëpp di ziar ñëpp. yow nag wax dëgg yàlla loolu nga wax léegi di ko seede da ngaa baax rek waaye nag euh, ab tool moom ku ci nekk koo ca fekk rek sa mbokk la ñun mënuñu leneen noo bokk benn tool bi Touba Toscana lañ am mooy sunu bunt ci sëriñ bi lépp lu ñuy liggéey tamit ca lañ koy jaaree te di ci rafet njort lool it di ci waale nag ñëpp ñoo xamante ne ni képp koo xam ni daanañ ko bokk ak yow di ko liggéey yàlla dogal nga doon way dawlu nekkatuloo fi dem wuy ci sunu ci darajee Cheikh Abdoul Khadir Mbacké bis bi luñ ci am yàlla nañ ko yàlla boole ñun ak ñooña ci barke Cheikhul Khadim noo ngi jégalu bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf say jërëjëf kon nañ baax jërëjëf jërëjëf ineo khadimul nasaratura batay ñu wéyal liggéey bi rek ku baax noo ngi lay siar wa radio online ñu ñew di xol di doon laaj mouride nan ngeen duggé bisu xasida ba ren ñi ngi lay bayyi nga wax fan nga dëkk ak fan nga fan nga joggé ñewon ci bisu assalamu alaykum mbokk talibé yi ma ngi leen siaré siar ñep ñëpp di siyaar bépp ngi dëkk uh, Touba Monza bok si daayira Touba Monza di yëngu ci bi ko Touba Monza si xasida yi di sëñ Tuubaa moom ni ma ko gisee kawe na njoot lool kawe na njott lool ba nga xamante ne nii lépp lu si waaye doon séntu gis nga ko fi mbaa nga gis leneen loo xamante ne nii kawe na sa njort di si ñaanal ñëpp nga ñoo xamante ne nii ñëw nañ fi sëñ Tuubaa yokk seen xéewal si ginnaaw sëñ Sidi Moxtaar te ñu fas yéenee sax si ndigal yi te ñu moytu tere yi di ñaan sëriñ Tuubaa defal tawfeex ñëpp te saxal si noppi tey jëf te sëñ Tuubaa nangu suñu taalibe jërëjëf ku baax tur bi maa ngi tudd Fallou Diouf Touba Monza. Diouf ba rajo Sëñ Fall yàlla nañ Sëñ Touba kon murid yi ñu wéyal liggéey bi ba ba tey rek ñu dajeek sun benn magum taalibe sunu baay Momit mu ñëwoon ci bisub bi kon mooy waral ne liggéey bu mat la rek mag ñaa fi gone fi bi dong dund kon nak bayi ñu ngi jéggalu tur wi ak fan nga jóge woon ba ñëw ci bisub xaside bi. man nag maa ngi jógee laa dispoli ko sëñ Touba ko man maa fa nekk di taalib sëriñ Mbacke Madina nek fa difa fa liggéeyal sëñ Touba ñewon fi nak ci dëkk bi doon sama dom. mu tombee guddi gi mu ne ma nañ dem ci guddi sëñ Touba gi barkelu ci loolu mooy samay tànk yi ma fi indi guddi gi nag guddi Touba la Touba nag mbiram kanam rek la jëm kon ku fi ñëw te tënku ci li sëñ tubaa digal wattu li la sëñ tubaa tere da ciy amee rek ngërëmal sëñ tubaa kon yàlla na sunu borom dimbalinu ci barkeb sëriñ Mbàkke Madina no daje ci ngërëmal sëriñ bi maa ngi sant nag tey rafetlu seenub taxawaay yàlla na yàgg ci barkeb sëriñ Mbàkke Madina jërë ngeen jëf ma gumba kase taalib bi sëñ Mbacke Madina ma kase jërëjëf Baye ma gumba wax dëgg yàlla lii ak cant la ndax bu ñu wootee bisub xaside bi gis ci mag ñi nga xamante ne si ñoo njëkkee woon liggéey bi di suñuy baay ban ñëw fekk si leen si ànd ak ñoom liggéey bi suñ tubaab yi nga xamante ne si lu ne ci réew mi ak lu de lu nu réew mi mel rek ak nu ñëwee ci réew mi ñun ñi ñoom ñii ñoo ko waral ñooy suñuy baay ñu dikk fekk leen ñu jeex tàkk ci sëriñ bi wax dëgg yàlla ñëwaat nekkat ak ñoom ci liggéeyu sëriñ tubaab yi day wane ne kon liggéeyu sëriñ tubaab bépp benn la kay jang khasida ak kay sikar ak kay durus ak nek ca daayira bi lepp ben la loolu dong lay wane kon sëñ bi ñi ngi sant nan la bu baax baax ba yalla ñu sëñ tuba eh, boole dimbalé tak ñi bañee fat ci ñaan jere jef amin amin barke sëñ tuba jef jere jef assalamu alaykum wa rahmatullah kon ñu dajé waat ak benen baye fall momit mu ñewon ci bis bi kon ñu wax ko mu wax mom fan la joggé ak mo nu tuddu léegi ak nan la gisee bis bi bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi leen di char baax baax mbokk jullit mbokk talibé di leen tubal baax waaw ñun ñi ngi joggé ba euh, Trento Alta DJ, euh, di kurel buy dogo dor ñu bok ci njidi Mohamed Cham moy sun tour euh, ñi ngi sant baax tay mom bisu mbekté la wa ndax it lii mënut ndax jël sa bis bi di ci liggéey Serigne Touba di jang xaside yi di jang alcorane di tuddu turu yalla sun borom bi danaka lolu mooy jaamu yàlla mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg waaye man it fi may waxee fenn képp la muy ñun ñi nga xam ne ñun ñooy tuut tànk di doog a dugg ci liggéey bi di doog a door ñu xamaat suñu bopp bu baax ndax liggéey bi doonu loo xam ne da nga ciy nekk tey suba nga génn ci wala nga nekk ci ginnaaw suba ginnaaw suba nga génn ci euh, liggéey la boo xam ne à vie la ndax kuréel xasida boo xoolee ba tey mag ñi nga xam ni ñoom la ñu roy kenn ku ci nekk da ngaa liggéeyal sëriñ bi ci kuréel xasida yi di jàng ba xëy Euh, kon li may soññee fenn képp la muy tout tànk yi nga xam ni euh, engagé wu nan euh, jël suñ mbir yëpp def ko ci xaside yi ñu xool bu baax a baax baax a baax ni ñuy doxee ndax seytaane de soxlawul ñi nga xam ne tey jii ñi ngi ca baar ya wala ñi nga xam ne tey jii ñi ngi ñi ngi ci leneen loo xam ne neexul suñu borom ñi nga xam ne jël nañ seen tànk yi teg ko ci liggéeyal sëriñ bi teg ko ci liggéey lu liggéeyal suñu borom bi ñoom la seytaane di wër muy suñ jëmm yi kon ñu góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ci loolu gën a gën a gën a xam ni euh, sëriñ bi dara daraam daraam daraam moyewul lépp day lépp da koy jaay ndax boo xoolee mag ñi àndoon ak moom danoo bàyyi woon seen lépp daan ko guddal daan ko bëccëg daan ko bëccëgal moo tax ñu jariñ ci moom kon ñi xam ne tey jii ñu ngi ci réew mi naam liggéey ñu fi indi benn jour la ñu am di ko répété kon jour boobu lépp lu mën jàpp nañ ko bàyyi te ñëw liggéey Serigne Touba xam ni sunu njariñ la euh, te ñu te ñu te ñu góorgóorlu baax ci ci ci sellal ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci ci ci ci ci xam liggéey bi ak xasida yi nees lan ciy jariñoo ndax doonul loo xam ne da nga ci nii nii la il faut nga dëggal bu baax a baax a baax sama xasida yi mooy samay kiraama euh, kon góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci loolu fi may xëy fenn képp la muy mooy ci tout tànk ñun ñi nga xam ne jub nañ di liggéeyal sëriñ bi te dafa dafa jafe dafa jafe ndax faso gàllankoor bu nekk da ko da nga ko gis façon gàllankoor bu nekk di di di nga jàkkantoog moom waaye nan gëm rek xam ne Euh, liggéeyal sëriñ bi moom doonu doon doonu lu yomb liggéey sëriñ bi doon maa ngi maa ngi tuub bu baax a baax a baax di jéggalu ci ci ci ci maanaam ñu sellal li ñuy def te xam ne euh, sellal képp képp képp képp mooy mooy mooy lii tax ñu jariñu ci waaw selal képp mooy tax mooy mooy tax li tax ñu jariñu ci maa ngi tuub bu baax a baax a baax a baax di jégalu jërëjëf. Cheikh Mouhamed kon bu ñu déggee seen kàddu daa mel na yéen ak kuréel gu ñëwoon jàng si yéen wala kuréel guy door a door nga ndax jàng ngeen am jotu leen a jàng. beneen beneen beneen bi ci des tamit li la ciy dollil mooy. tamit bu ñu jëlee suñ gis-gis ak suñ bët. Mhm. ñu teg ko ci ki nga xamante ne si moom la ñu liggéeyee lan ko natt. ak lañ ko tuumaal kon natt ak tuuma du diis du diis ci ñun léegi may laaj nag yéen ndax jot ngeen jàng wala jotu leen jàng waaw daanaka bi mooy ñetteel bi yoon ñuy kuréel ñetteel bi yoon ñuy ñëw di assister journée xasida euh, bi njëkk a dem mooy bi amoon Prato euh, ak bu Milan bi jàll daaw ak bu ren bi ñetteel yoon ñu ngi koy assister di jàng maanaam li nga wax rek moom laay dëggal ndax Cheikh Ibra euh, doy na ci ñu xam ni moom nee na bi kër Sëñ Tuubaa dégg na fa lu nekk lu dul Cheikh Ibra wasin na biig kon ak tuuma ci yoon wi lañ ko fekk ci fi lañ koy bàyyi waaye tuuma bi naam e, ku ni séntu ci gaal ku ni ci gaalu xaj yaa buñ la fa fekk ngay lii ndax ku xar xos day jamono ji ñu ngi leen di wax lu nekk seen bolo gi ñu ngi leen di wax lu nekk lu ñaaw lu ne ñu ngi koy teg ci seen der waaye loolee ñun ñi nga xam ne ñooy tuut tànk yi te jug bàyyi suñ yitte yëpp ngir xaside yi ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo war a gaafal loolee waaw ci loolu nag liñ koy gaafal leen képp la mooy foo xam ne tey jii du du du du du du mbir du mbir fu neex suñu borom bu bu buñ fa teg suñu tànk lu neexul suñu borom buñ ko dund ndax it euh, lu baax ak lu bon moom mënuñoo ànd soit da ngay nekk ci xasida yi di liggéey sëriñ bi wala nga mel ne neneen waaw noo noonee la demee maa ngi tuub bu baax a baax am naa mbégte looloo ci ci interview bi di leen sant bu baax a baax tey ñaan li ngeen liggéeyal sëriñ bi yàlla na ko sëriñ bi gërëm. yàlla na ko sëriñ bi gërëm te fulal leen ko ñu ngi ñu ngi tub bu wér a wér a wér rek jaa ngeen jëfati jërëjëf baax jërëjëf ku baax yàgg fi loolu wér ah, kon mbokk yi kon ñu wéral liggéey ba léegi rek ñu ngi taxawaat ak meneen mbokkum taalibe bi moo xamante ni si tamit dafa ñëwoon ci bis bi comme liñ koy laaj mooy comme liñ laaj gaa yi fi jaar léegi rek ku baax ginnaaw bi la nuyoo laaj ah, fan nga jóge ak nan nga dunde bisub xasida bu ren bi asalaamaaleykum ah, Serigne Ndiaye Touba Bergamo sant bu baax a baax nag ndax euh, bis bi moom bis bu màgg la bu màgg màgg Sénégal lañu ñu fekk sax dañu doon naroon fekk mais dañoo ñëw pour fekke si ko tey dañu dagg suñu yitte yëpp suñu liggéey yëpp dañ ko dagg pour ñëw fekk si bis bi. mbir mi nag day mbir mu yéene parce que xasida moom day loo xam ne si day fekk jëmm ju tilima tilim mu sesal ko mu set wecc wecc wecc wecc wecc ndax ñun ñii di wax ak yéen day toll nay jamono ci leneen lañ nekkoon waaye bañ demee ba commencé jaxasoo gone yi nekk ci xasida yi ñoo dem ba wëlbatuñu ba léegi ñu bokk ci kuréelu Touba Zingoña samedi ju samedi juñ daan def ca àll ba léegi duñ ko def fenn furul ca daara ja fa la ñuy toog ba guddi ñu dem ñibbi te fas yéen wuñ koo dindi nag ci loolu lañ fas fas ñeneen wéy ba faaw ndax xasida moom day fekk jëmm jëmm ju fu mu mën a nekk boo ci mënul dara fexeel di ko jox xasida mu koy durus bu yàggee dana dem ba lépp lu mu nekk lu safaan dana ko bàyyi nekk ca yoon bu baax di sant bu baax a baax nag di sant ñi organiser bis bi parce que lépp jaar na yoon lépp lépp lépp rek jaar na yoon. jërëjëf ku baax ñu lay siyaare jërëjëf yàlla na suñu tubaab. inni xaadimu nasaara turaa fi ardim li maaliki murtara inni xaadimu nasaara turaa على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم صار إلهي بالمناجات وبلغنا الجنات

قال الكرام فقط خزايد الكرام فقط والجخاب أبدا خير المرام حد محجلة كلما محجلة كرم عشان وصاح الملك ما توجه مسار الله لبلا إله لبلا إله لبيع ما إله إلا الله يا سيدا في المال خلو شروى ويا مبل فاتي دار مشوا إني أتوت ليش لا يسخركم أبخب لما ما أرجع نيل ما أرجع نيل ما أرجع نيل ما أرجع فسافة يا خلو إبراهيم مولاك خير الجزاء والمنى خير الجزاء والمنى خير الجزاء والمنى خير الجزاء والمنى خير الجزاء والمنى خير الجزاء والمنى خير الجزاء والمنى خير الجزاء والمنى خير الجزاء والمنى دارك أولاك فاحلم بأنك حني شريك أبدا وسأقربك في الدنيا والوراك فدم الأسدخ والإخلاص مجتهدا في السير والجاري كي تنمو كي تنمو kaitama kaitama kaitama kaitama kaitama kaitama مشاهيك حمدي لربي خافل زندنا خافل توبنا يفوقنا ثم صلاة مع صلاة مسلم على الوسيلة سفينا الكريم محمد والآل وصحبه مع فراسة بالغ إنابة هزاوينا يا محمد من كل ما نجيت مصحفوت إذا الحجلال حمار في الخير تعطي جلالي مال الخير وسقت للخيار ولسيتاني وناصر الخلق أسيرا كان فخل

ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بتوبنا بجاي خير كل خلق مدى علي سلم ثم سلم سرمدا واغفر لما تحت بالجنان واغفر لما نتوت بلساني واغفر لما لمس بيديني واغفر لما مسحت برحليني واغفر الماء نصرت بعينيه واغفر الماء تمخت بحسنينه واغفر الماء أكلت بالبسل وما بالفجر أنا زيد يا رب سماء واغفر الماء حلمت بالفلكة واغفر الماء أنت بالملكة واخفي بجادي كل ما أسررت وفي البيت كل ما أحللت سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Jadi ngeen def ñi ngi leen siar bax di jéggalu bax bax jere jëf bax ñu ngi siaré ñi ñi ngi tup tur yow da melna jangkatu xassida bu ñew ci bisu xassida yi ñu di la laaj nak fan nga joggé ak euh, bisu xassida bi nan nga ko gisé bismillah cheikh joggé euh, touba fano maa ngi jóge Touba Fano ñëw ci bisu xaside Mila bi di ci am mbégte bu baax di ci santaat sëriñ bu baax ba mu mayee ñu fekke ko daaw fekke ko ren di ci sant sëriñ bi bu baax a baax biñ ko fekke waatee bis bi moom wax dëgg fa la am ci ak kontaan rek ndax lépp sëñ Touba la te bi ñu ñëwee fekk nañ fi taalibe sëñ Touba yi ñëpp ñëw te dara waralu ko du dul liggéeyal sëñ Touba ndax ñun amuñu lu dul xasaayit kon nag bu xasaayit xewlee daa mel ni ñun ñëpp xewle te kon xasida moy suñu lepp kon na fum ñu mëna fekk rek dinañ dag suñu yitte ñew ngir jëm suñu tuba yeen it ñi ngi leen di siaré bu baax seen site bi yalla na ci suñu borom bi def barké te mbokk ci site yi ñi dégg ci kaw kaw ci barké suñu tuba ak ngeen jëf jëf seigne Abdou moy Touba Monde bi TV ñoo ñewon tay ci bisub qasida bi jëf wax dëgg yàlla sa lepp rafet na ñi ngi lay sante di la gërëm ku baax no ngi siaré gis nañ bu meenu mbokum talibé mu xamante ni si yàgg nañoo moom ànd ak moom liggéey bi léegi su ko defee moom mu fàttali ñu tur bi ak fan la jógee ak nan la gisee bis bi bisimilah sëñ bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, man la Saliou Diop euh, nekkoon fii ànd ak yéen liggéey bi nekkoon Touba Toscana nekkoon Livorno yàlla dogal ci dogalam ñu bàyyee ko fi nekk ko tey France euh, doon di fa yëngu ba léegi it liggéey bi moom la ñu fay wéyal. Euh, depuis jàpp naa ne depuis euh, muy am ba léegi euh, ñaari ñaari édition yu njëkk rek lañ tardé depuis loolu moom amul benn bi si tardé dañ daan jógee dañ daan jógee France ñëw jaar Toscana ànd kook yéen ñëw fii waaye yàlla dogal na comme xam ngeen ne liggéey bi dafa yaatu léegi waa France yëpp dañuy ñëw moo tax fi mu ne nii ñoom la ñuy àndal bokk yoon wi ba yegg si fii delluwaat France si jàmm ak salaam waaw loolu daal moo nag suñu tànk comme ni ngeen ko xamee rek mooy maanaam yaata liggéey bi sëriñ bi rek jërëjëf jërëjëf sëñ Saliou ah, wax dëgg yàlla loolu moom lu ñu xam la ndax yàgg nañoo yow ànd ak yow liggéeyub sëñ tubaab yi fekk nañ la France tamit. léegi xanaa li ma lay doolee laaj mooy noo gisee bisub xasida ren bi ndax wax dëgg yàlla li ñuy wax naan euh, liggéeyub sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la jëm bi bi set nga ciy gis yokkute loo xamante ne si da gën a yem noo gisee yokkute liggéeyu ren bi. waaw euh, ren moom yokkute am na si ba ma duggee ci salle bi rek laa ko laa ko seetlu ndax eh, biñu ko ayé 2015 ndax damay wax ni ñun ndax Toscane biñu ko ayé daf ma jaraloon ma jaar li Livorno jël badge and ak yeen liggéey bi kérok daanaka sonn naa lool ci manam di recadrer soxna yi ci manam niñ doon comportement ak yoy yëpp yalla dogal ma ñëw tay fekk loola ngeen ngeen ngeen ngeen ut ci ay matwa yo xamante ni euh dama ci dama ci bëgg lool ndax sëriñ bi nak eh, bu caaxaan jexé li rek la daan doxal séparé goor ñi ak jigéen ñi ku nek nek ci la war bu ñu rek li mo wara am xanaa bu ñu ci yokkee rek wañi wañi wañi coow li waaye daal séparation bi moom moo moo war a am comme ni ngeen ko defee avancement am na ci côté njàng mi gis nañu kuréel yi ñu ngi dox wax dëgg mag ñi xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu ngi def seen liggéey bu baax ndax ñu ngi namtal tuut tànk yi euh, ñu ngi gën a xam njàngu mag ñi euh, te dëgg naa dëgg-dëgg nag loolu mooy mooy mooy base bi euh, moom la ñu war a njëkkee avant ñuy dem ci dara am na avancement bu baax ci yi yëpp. ñu ngi lay sant di la gërëm yàlla nañu suñu coow boole dimbale kon ba léegi ñu wéy ak ci laaj yi rek ndax am nañ suñ beneen mbokkum murit moo xamante ne si tamit mu ngi fii ñu bëgg ko moom it laa am ay laaj yuñ ko def ci bis bi bisimilah sëñ bi nga wax tur wi. Ah, bisimilah ñoo ngi ziar ñëpp di di nuyu ñëpp daanaka ñun moom ñoo ngi tudd Bamba Faye bàyyeekoo Touba Bergamo bokk si kuréel tu tànk Touba Bergamo bi. jërëjëf sëñ Bamba ñu ngi lay delloo ziar. di la laaj rek ndax noo gisee bisu ren bi ku xool ne bis bi ren moom yokkute yi bëri na. moom noo gisee bisu xasida ren bi. ah, ah bisu bi moom comme li ñuy wax rek naan liggéey suñ bi moo amul tànk ginnaaw tànk gi te amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am daanaka loolu da see feeñaat bu baax. ndax boo gisee bis bi ni mu doon doxee daaw ak ni mu doxee ren nga xam ne am na ay yokkute bu baax a baax ci wàllum niñ def ci maanaam li si ëpp solo muy séparation góor ñi ak jigéen ñi nga xam ne ku nekk dañoo dafa nekk si réparti boppam gis nañ si wax dëgg yàlla suñ bopp bu baax am am nañ ci di ñoo ngi ciy sàkku tamit ngërëmu suñ bu baax a baax di ñaan ñu daje seeg moom ci barkeb Cheikhul Khadim. jërëjëf sëñ Bamba wax ji am na solo lool yàlla nañu sëñ Tuubaa boole dimbale jërëjëf ku baax noo ngi lay siyaar. ñu ngi delloo siyaar. ñu ngi tuub nag bu ko defee nga fàttaliwaat ñu tur wi. waaw Mori ah sëñ Mori Niang. Mori Dia Mori Dia. Touba Brescia waaw ñu ngi toog taxaw ak kon sëñ Mori Dia bu Touba Brescia moom it ñu bëgg koo laaj comme li laaj sunu gaa ñu jàll léegi rek nu mu bisu xasida bi ren ak yan soppeen nga ci gis ak noo jàng noo jàng bis. waaw bis bi de macha allah wax dëgg yàlla gën naa taw feexe wax dëgg lépp lu ci doon séentu mën nañ ne gis nañ ci lu kawe seen jox surtout lu ci demee ni exposition bi fi eh, wa groupe Majalis def nga xamni ni wax deug kawé na njortu bépp murit maanaam lépp luñ doon mebet ci ci walu woné señ bi li ab tambali la ci boko bo ñëwé ba gis ko wax deug sa xol dina ci sedd ta ay tout tank ñokay def wax deug wa réew mi rek jëmmi wa réew mi rek tradition bi daf leena jëlé kaw kenn manam niñ ko défaré dafa murite dafa dafa kawé ndortu moo tax wax dëgg amuñu lu dul kontante ci bis bi di ñaan lépp luñ fi jëf rek Serigne Touba nangul ñu ko dencal ñu ko fi yàqeegul barke borom Touba. ndax euh, man la dolli la ci loolu rek ndax jëfin wi ngeen jëf day mel ne tubaab bi lii la xam. pour nga di ko jàngal nit ak nga koy wax histoire nit. moom nii la ko xamee jànge moo tax nga xamante ne si daanaka tubaab bi moom nin gisee moo moo moo waral ñu gis ko ni ñu ko gisee muy liggéey boo xamante ne si moom kan ngeen ko àndaloon ba defar liggéey bu kawe bu mel nii waaw liggéey bu demee nii xam moom kay jëwriñ yi ngay wax sax ñu demee ni sëriñ Xaalim Diop ak soxna Nogoy Mbeng ak euh, seen jëwriñ ju demee ni sëñ Mouhamadan Mbàkke Nowaara ñoom ñoo ko ñoo ko euh, liggéey ñoo ko saytu ñoo ko taxaw ba mu toll ba mu egg fii euh, ku demee ni sunu jëwrin ju mag ji mooy Serigne Assis Mbacke Serigne Abdou Assis Mbacke Majalis mooy jëwrin mooy jëwrin ji wax dëgg li lépp moo ko taxawu moo ko moo ci teete tu tànk yi ba ñu liggéey ci lu muritee nii comme ni walla la wax leer rek maanaam di ñaan sunu boroom lépp luñ ci mébét rek mu dimbali ñu ba ban jëf ko nan ko bëgge bal jëf si sax lu kawee suñu jot ci barke Xaadimu Rasuul jërëjëf ku baax ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf jërëjëf ini uxaadimu nasaratura fi ardim li maliki murtara ini uxaadimu nasaratura